weesu na ko jàngoro yu bari yu dul wàllante docteur Sarr nee na tux mee ko waral enquête booba jamono naan lin war a dakkal kay mooy mbëkk mi journal bi ci xëtam gu njëkk naan l'heure est grave joxe ci firnde gaal gi bawoo bar ñi yaboon ñetti téeméeri nit ci ñaar fukk ak juróom dong ñoo ca mucc le témoin ne ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ya ak juróom ñépp nga ca ndox ma journal bi ne amul nag benn gox ci bar ñi gu mucc ci mbir mi am na njaboot goo xam ne sax juróom-ñaar ca ñoom ñoo ca faatu journal bi yéggee ñu seedeey waaju ñàkk ñetti doomam ci musiba ba kumba jooja loola tax Mamadou Diop Thioune bokk ca HCCT di itam yëngu ci wàllub napp joxoñ baaraam tuuma yenn wayjur yi jàppale seen njaboot ba nuy tegu ci yoonu gi déegi Macky Sall nag yoon yooya la bëgg a fatt ndax la témoin nee na démb sàkku na ci gouvernement wam ñu lali pexe ba dakkal yoo ya maanaam ndaw ñiy jóge ci réew mi di jëm ca bitim réew jaar ci gaal gi Macky nee na na dakk Macky ngay teg ay barrière noona la ko le gisee ne bëgg a mooy mbëkk mi ak jee yi muy def ci réew mi ne woon sàkk di grande offensive contre l'immigration irrégulière te Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse et de l'emploi fësal ko yoor yoor bi nee la muy wone dëgg mooy la jóg Macky Sall ci wàllum xëyum ndaw ñi waaye ci vox populi njiital ANPEJ ma nga naan lii xew tey weesu na wàllum xëyum ndaw ñi ña ngay ñaawlu ci bileb yéenekaay ni ndaw ñi bàbbeekoo wutali bitim réew te jaar ci gaal yi journal bi nañu waaye bàbbeeku googa la Macky bëgg mu dakk démb ca conseil des ministres la joxe ay ndigal jëm ca loola na dogal yenu fa jëlit bari na ca ministère ak i direction générale journal bi nemmeeku na ci coppite yu bari ñu waaye fen du ministère de l'intérieur préfet yaak sous préfet yaak gouverneur ya yéene kaay bi nee na danoo teg ñi teggi ñee fukki département ak benn yi coppite yooya soxal na leen ay fal ak i folle yu takku fa yéene bi nemmeeku xayma ko ci juróom fukk neen ne Faatumata Taal moom fal nañu ko ca FONGIP moo fa wuutu Thérèse fay bu sukkandikoo ci yéene yu bari eaux et forêt Baydi Ba ak Abdourahmane Dieye ña toppoon ca bi nee na ñoom la ñu daal di proposé ñu fal leen laas ni kon colonel Mbaye Ndiaye fi mu ne moo jiite douane Mamadou Moustapha Ba mi jiite ministère des finances et du budget laas nee na Macky Sall gërëm nu ko yéene kaay bi ne président Macky Sall rafetlu na jéego yi ci wàllu koom waaye it ni mu peegee pexe yi suqali koom-koom réew mi laas ne yi kàddu it Macky Sall la ko yëkkati ca conseil des ministres Macky Sall mooma it Sud Quotidien nee na tabb na Cheikh Tidiane Koulibaly mu war wuutu Abdoulaye Sylla ca conseil constitutionnel pal gu nar a jur coow ndax ci la témoin njaga si laa ngay wax xaat na yëf yi scandale la ci la tribune ñuy sàkku ci Macky Sall mu deltu ci dëkkëre bi tabb waa la lataa ñu leen di samp sénat googa ayib dafe dellu na fa démb waaye jëleewu fa dara ci journal bi di vox populi moom mandataire Ousmane Sonko ba ma ngay tuumal Macky Sall ne moo lompoñal sénat ba mënu ko jox fiche de parrainage yi Sonko yi ndax njiit la di Doudou Ndir daf koo mujjee wax ni daal duma la mën a dalal gannaaw teggi nan ma li ñàkk doongu laay jël benn dogal UIP nag di union interparlementaire ñoom jël nañ dogal ci mbiram Ousmane Sonko gannaaw ba ay ñooñam demee kalaame ji fa conseil directeur ba Ousmane Sonko la faral bu nu sukkandikoo ci Vox Populi ndax sàkku na ci nguuruk Sénégal mu jox ko ay àqam yelle fam jox ko it képp ku bëgg bokk ci élection yi ñu jëm foo dëggal boobale xibaar ci xëtam gu njëkk dolli ci it ne wérgu yaramu Ousmane Sonko fi mu ni jaaxal na lool waa UIP la tribune moom li ko jaaxal ba mu wax ko mooy ni yi Walf Quotidien mel ni ku naan ko diet bul gaawantu opposition bi am na lu nuy togg te bés bu ñoree daanu xam ni opposition am na ci Sénégal journal bi ne forum bu rëy ña ngi koy taxawal booba jamono Les Échos naan ñu fipp moom taxaw na ca parti démocratique sénégalais Sauvons le PDS ak cercle des leaders de la diaspora ñoo joxante loxo seen bëgg-bëgg mooy démocratie am ca seen parti booba kuréel ya itam di dox mu waree ñu sàmmoon teeg charte yaak règlement intérieur ba ca waxtu woowa bés la jour di wax ci ñibbisi Karim Wade Karim mooma am journal ne am na ñu muy waxal ci parti bi waaye am na ñeneen ñoo xam ne ba tey Karim dese na leen a wóolu ña ngay séentu itam Karim ñëw def yëfi waa Qatar yore ay pétrodollar di séddale waaye ña ngi koy artu naan ko bul fàtte ni yaag diw gu ne ci taal yéen a yem bët teggeekuwul ci yow yaakaaru Karim Wade gi di ñibbiseem gi mel ni bu Abdoulaye Wade ba ca 1999 it bés bi le jour yeggee nanu ko réew mi quotidien booba jamono yeggee ñu li ma kiy waaj te mooy beneen tournée économique buy nuroo campagne électorale turu tournée économique bu ca noppee it conseil des ministres décentralisé yi réew mi nee na da koy dekkal du yàgg dara lépp lu tukkee ci enquête bi ñeel Baay Faal ba nu faat ca Tuuba la libération xëy yeggee ñu ne nu Baay Faal ya kuy jaay cigarette lan doon bëgg a jàpp ba nuy wër dëkk ba ngir ñu sàmmoon teeg santaanay xalif général bi kanu faat journal bi nee na ñaari soxna la amoon ak ñeenti doom fanweeri at ak juróom it la amoon moom Moustapha Niang bal lanu ko dóor mu faatu ci gox ba Baye Fall demoon it journal bi nee na amee na nuy gaañu gaañu takk der yi ñoom teg nanu loxo fukki nit ak ñaar ñu am diggante fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ak juróom-ñaar gendarmerie sax lanu mujjee teg ca gox ba ngir dal delsiwaat buñ sukkandikoo ci libération ci l'observateur booba jamono ñuy wone doole gendarmerie mi jëndaat sax jumtukaay yu bees jëndee ko ca Chine bokk na ca ay oto blendeek yeneeni jumtukaay yu mucc ayib Jóob moom génn na ci kaso bi gannaaw ban ko àttee démb yor yor bi bi nu des ci kaso bi Hannibal Jimit dafay des ci kaso bi ndax bàyyib nekkandiku gi mu sàkk woon di juróomeelu yoon bi journal bi nee dan dañ koo gàntal Aziz Ndiaye moom gàntaloon Makan Mbeng ci làmb ji mbëgg a tëggal Balla Gaye 2 waaye nee ko ci sunu làmb fay ko xaas bi nga ko deseel ba nuppi Aziz it nee na Balla Gaye 2 fi mu ne amul benn combat tafaati nag Eumeu Sène lay xaar ba xam fu nuy mujj jotagul it avance ngir bëreek Eumeu Sène sabali moom ëllëgam ci la stade tiit ndax gaañu yu bari yi muy amee mi quotidien booba jamono naan ñu gaynde yu jigéen yi